إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقلبي بمنه المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقلبي بمنه المصطفى ci barke Serigne Touba mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci turu comité d'organisation bu pose de la première pierre mosquée Moukhaddamatoul Khidma bi ñu fas yéenee tabax cees maa ngi yëkkati sama kàddu man Abdou Aziz Guèye di chargé de communication et de marketing bu comité bi te di wax ci turu ki nga xam ne moo di Amadou Diossi Ndiaye di président du comité d'organisation bi ñu ànd nag ak comité d'organisation bi ñëw fii ci Touba gannaaw bi nga xam ne ñëw nañ fi ñëw bu njëkk bi nga xam ne sëriñ Bassirou Abdou Khader di porte parole xalif bi moom moo ñu dalal ñu fas yéene ñëwaat fii tey ci fi nga xam ne moo di Guédé ci kër sëriñ Cheikh Guédé ñu rafetlu lool wax dëgg yàlla dalal bi ak teewlu bi nga xam ne moom lañu may ci lii ñu jëm nii mu di teguk xeer jumaa ji nga xam ne moo di muxaddamatul xidma ñu fas yéene ko teg cees ñu bëgg nag euh, nit ñi teewlu ci xew-xew boobu nga xam ne xew-xewu lislaam la xew-xewu diine la waaye xew-xew la boo xam ne képp kuy jullit di wax ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah sa bés la xew-xew boobu nag famille Abdoulaye Ndiaye nekk Thiès ñoom ñoo fas yéene jaayante diggante ak seen boroom parce que ne liggéey Serigne Touba daal suuf soo xam ne suuf su lew la suuf soo xam ne tànk mas ca tegu ci tabax ñu jël ko def ko addiyee Serigne Touba fas yéene fa jëmmal jumaa ji ñu tuddee Muxaddamatul Xidma ma bëgg nag wax leen ne date boobu nga xam ne ñoom la ñu jël moo di le 10 juillet le 10 juillet 2021 à 9h ci Thiès jàkkaarloo ak stade Maniang Soumaré foofu la ñu fas yéene dalal jëmm ji di sëriñ basiiru Abdou mu ñëw ci taxawaayu jëmm ju mag jooju di xalif général di Mourides sëriñ Mountakha Mbacké yal na yàlla yokk leeram te dëgëral ko bu baax a baax di wax ne ñun jullit yëpp dañ ci kontaan bu baax a baax di wax ne dañuy jox kàddu ki di sëriñ Fallou Galas bu jëlee kàddu ba pare dinañ jox kàddu ki nga xam ne moo di sëriñ amadu Diosi Ndiaye mu wax ci turu famille Abdoulaye Ndiaye ak ci turu comité bi nga xam ne moom la ñu tabb ci bopp bi ñu fas yéene yaatal bëgg nag bu ñu paree ñu jox kàddu ki nga xam ne moo di sëriñ Cheikh Khadim Mbacké bu Cheikh Guédé mu jël kàddu bu ko defee nag ñu dal di jox cheikh bi di sëriñ Cheikh Guédé mu dal di tëj dal di ñaan bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin laa xawla wala quwata illa billahi aliyil azim mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi amaat mbégte di toog ak ci jataay bi nga xam ne jataayub lislaam la jataayub liggéeyal diine lislaam la waaye jataay la it boo xam ne liggéeyal Seexuna Ahmadul Xadim la ñu di ko amale fii ci kër Serigne Cheikh Guédé Mbacke ci pencum Serigne Mbacke Bousso ñu jël ndigal nag ci sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha xalif général kullu murit yàlla na fi yàgg lool te and ko wér mu jaar ci rakkam yore kàddoom di Cheikh Mouhamadul Bachir moom Cheikh Abdoul Khadir ndigal loolu wàcc ci njaboot gi nga xamante ni bii moo di njabootu Alhaji Abdoulahi Ndiaye te ka ne ca bopp ba di sëriñ Dame njaay moo ànd ak rakkam sëriñ Ahmadou Ndiaye ñu natt seen i kook xool seen digganteeg seen borom wax ne daal. fas nan yéenee liggéeyal lislaam néegub yàlla bu mag boo xam ne lépp lu mu laaj danañ ko ca def te def ko nag ci suuf su lew soo xam ne kenn mësu koo moom mu jënd suuf sa ba mu àgg mu def ko addiyee Cheikhuna Ahmadul Xadim génne waat ci alali boppam it ne dana fa tabaxal lislaam néegub yàlla bu mag néeg boobu nag mu jox ko addiyee Cheikhul Xadim moo tax Serigne Cheikh Guédé mi nga xam ne mooy buntu buntam ci Touba di buntam ci liggéey bi di jëwriñu liggéey bi it ba mu ko ko waxee mu dem ci sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa mu ne ko danaa leen jox aw tur moo ko tuddee jaamiu Cheikhul Xadim Muxaddamatul Xidma loolu moo tax nag ñu fas yéene daje fii tey ngir woote ko woote boobu nag day day ëmb mbooleem umma islamique bi ndax ñoom lañ koy defal waaye day nag ñeel xaasatan mboolem tarixatul muridiya ndax addiyee Cheikhul Xadim la moo tax ñu toog fii nag mu war a am fukki fan ci weeru juillet di amee nag ca bis boobu nag moom la Serigne Touba Cheikh mun Muntaxa jox ndigal Serigne Cheikh Guédé mu bàyyi ko ci Serigne Cheikh Mahamadul Basir mu fas yéene woo bokki jullit yëpp ak bokki taalibi yëpp rawatina nag bokk yi nga xamante ne bi ñoom lañ koy liggéeyal ca Thiès loolu mooy kaddu yi. fas yéene yëkkati suñuy kaddu ci turu de d'organisation bi nga xam ne bàyyi ko na Thiès ñëw fii ci bisuk euh, bisuk tegu xeer wi nga xam ne sëñ Bass Abdou Khadre fas yéene ko teewee Thiès incha allah. ci jumaa ji nga xam ni sëñ Daam Njaay ginnaaw ba mu déggee waxi Cheikhul Xadim ji nga xam ni wax na ko ni la tastaan bi ni ni'matillahi ala isyaanihi barum xayrullah muy yéen ñi nga xam ni ñu mel ni yow sëñ Daam wara ñi nga xam ne yàlla denk na leen wërsëg seen alal yooyu fexe leen bu bu leen ci sukkandiku mukk di ko ci di ci mooy yàlla mais fexe leen ci liggéey ngir ngeen am ci këru ëllëg yamu ca mu ni innal mu baaxaati isalam tuf di la jinaani fa dinaari tuf di mu ni alal yooyu lu mu bari bari yëpp boo ci liggéey lu am ci këru àjjana wala yaasu billah këru safaan nga rek la lay yóbbu moom nag ba mu déggee loolu mu daal di jël ci suufam la mu gën a fonk gën ca yaatu gën caa placé mu jox ko Cheikhul Khadim et fas yéene yëkkati ci wërsëgu boppam tamit tabax ko loolu nag suñu borom da ko ci defal tawféex ndax tawféex ji du dara lu dul sëñ Mamadou Mountakha ci boppam euh, ci kàddoom yu tedd ya moo ni jumaa jooju sëñ daam fas yéene tabax foofu tuddee naa ko jaami Cheikhul Khadim muqaddimatu xidma kon ñu xam ni jumaa ji nga xam ni ñu ngi ko fas yéene tabax incha allahu Thiès euh, sëñ Mountakha Mamadou Mountakha moo joxe tur wi tuddee ko muqaddimatul xidma waa loolu nag di mbir mu am solo te euh, sedd xol lool ndax euh, mu ngi bàyyee ci xasida goo nga xam ne suñ euh, Cheikhul Xadim bind na ko nga xam ne ay salaatu ala nabi julli ci yeneen bi kese la waaw yi woow nag lañ lañuy fas yéene woo umma islamique bi yëpp rawat na waa Thiès ñu ñëw taxaw ko mu ngi am incha allah le 10 juillet samedi lay tombeel incha allah bu ko defee ñu ngi ciy woo ñëpp rawatina surtout waa Thiès ñu ñëw taxawee ko incha allah bu ko defee incha allah ñu màggal ko te yàlla boole ñu yiw yëpp ñu ngi ciy sant ñëpp di ci gërëm ñëpp nag incha allah ngir ne sëriñ bi ci boppam moom moo dige woon ci ñu di ko liggéeyal waxoon ne am murit bu nekk war na fexe ba bàyyee xel ñett yii waxoon ne tuuba li abdin muridin saadiqin lahum bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyati nga xamee ne ñett yi ki nga xamee ne moom moo nekk ci suñu ginnaaw di suñu Cheikh Mbacké eh, diiru dundam gi yëpp ci loolu rek la ko la ko la ko la ko la ko la ko paase yàlla na fi yàlla yàlla na ko fi yàlla gën a bàyyi ci barkeb Cheikhul Xadim waaye bàyyi fi mbooleem képp kuy dégg suñu kàddu mbokk yi lii ñuy def nag Cees la jëm nañu xam ne it sëriñ Touba lañu koy defal sëriñ daam Ndiaye it bu mu ñu gën a gore ci liggéey sañ Touba nanu fa ndaxte liggéey sañ Touba moom yemul ci kenn buñ ko ko bàyyee moom rek bu boobaat nañ xam ne njëriñ yëpp jël na ko moom rek ndaxte sëñ Touba moom képp ko képp koo xam ne nii def nga ca dara na nga xam ne la nga def Seexul Xadim rek nga ko defal defaloo ko sëñ daam Ndiaye defaloo ko waa Thiès defaloo ko kenn ku dul sëñ Touba nga ko defal sëñ Touba nag moom neex naa defal lool ndaxte boo ko defalee mu fay la daan yàgg naa wax ne yàgg nañoo wax ne képp ku ko defal loo mënul mu defal la lu la jomm loolu moom mooy sëriñ bi kon nag nanu góor góorgóorlu ci jéem a góorlu fexe ba loolu ñu ñu ñu ñu góorgóorlu ca kenn ku nekk feeñ ca népp noo mën a feeñee nag doomu aadama mënta ñàkk bañ a man dara kon nag nañu fexe ba loolu ñu ñu góorgóorlu ci lii nag euh, mbir da cee xew ndaxte cees bërëb bi nga xamee ne moom la ñu wut nga xamee ne sëriñ Dame Ndiaye wut na ko euh, ngir tabax fi jàkkay Cheikhul Khadim wax nañu ne bërëb boobu depuis 1912 ba léegi kenn mus faa dëkk mu am nag ay tombe yu ci am 1912 dafay mel ne sëriñ bi moom la ñibbisi woon ñëw njaareem nga xamee ne ñaari tombe foofu dafa am moo tax Sëriñ Tuubaa dara am du hasard lépp lépp rek dara am doo hasard loolu mbir la ci mbir yi waaye tamit nag euh, da ngay xool ci deux mille vingt et un bii ñu nekk nga xam ne boo jutalee douze bi maanaam vingt et bi nga xam ne maanaam dafa dafa dafa dafa dafa am leneen lu ci lu ci lu ci feeñaat jëm ci loola. nga xam ne maanaam boo ko wëlbatee dalay lay joxaat douze foofa te douze it mbokk yi nga xamee ne dañuy nekk ci wàllum euh, gëstu yeeg yooyu xam nañ maanaam baatub douse njëriñ yi nga xamee ne moom moo ci nekk ak yu demee noonu kon nag loolu. day wane ne sëñ Tuubaa moom dara am du hasard dara am du hasard kon nag lii bu ñu jëlee it cheikh Mouhamadul Mountakha tuddee ko jaamia ak cheikhul xadim muxaddamatul xidma nga xam ne muxaddamatul xidma it buñ ci taxawee rek di xasiida goo xam ne nii xasiida la goo xam ne nii cheikhul xadim bi mu ci maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek la ci doon tagg waaye tamit nag mu bokk ci xasiida yi mujjee bind ba noppi bokk ci xasiida yi gën a mag loolu nag war nañoo soññ ci lii nga xamee ne moom la bëgg a def ñu fexe ba mu bokk ci jaamia yi nga xamee ne jaamia yi gën a mag la mooy mooy jàkk yi gën a mag ci al aalamul islaami bi yëpp loolu nag buñ ko bàyyee kenn dinaa ko dellu siwaat buñ ko bàyyee kenn sëñ Daam Jaay li mu waroon a def lépp def na ko waaye képp koo xam ne nii ab jullit la lépp loo ca mën na ko def te nga xam ne boo ko defee fayuk sunu borom bi tabaaraka wa taala rek nga ciy am kon ñoo ngi yemale foofu kàddu yi di sant bu baax a baax ak i gërëm. ñu ngi leen di nuyu leen siyaare ci turu sëriñ Mountakha Mbacké mi nga xam ne mooy xalifa général di murid yàlla na ko fi yàggee yàlla yàggal te wéral ko ak Cheikh Mouhamadul Basir mi nga xam ne mooy buntam xam ne moom la jox ndigal mu war a teg xeer wi le 10 ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp yàlla yàgg leen fii te yàggal ma fi te lépp lu ñu yëngu wala ñu jëf ko mu dëppook bëggu sëj bi yàlla na ko defal ñu ñëpp kàddu yi <coughs> day mel ni jërëtul guddal ndax sëñ Fallou Galass si la wax sëñ Axma wax ko Cheikh Khadim wax ko doy na lu ñu waxaat loolu rek la ñu xanaa sant communiqué bii ma nga xam ne ñoo fi daje tey fas yéene waajal bis boobu muy bis bu màgg ci lislaam ak bis yi bokk ci yi gën a màgg ci lislaam ndax <clears throat> sëñ Bakki Bousso dafa wax ne sëñ bi ñetti naan la fi bàyyi woon waaye tabax jumaa aj màkka ab jàngukaay tabaxal nañ ko jumaa ji ay doomam def nañ ko aj màkka sëñ Fallu defale war na ko moom sëñ Mbàkke bu saak sëñ Seexanta jàngukaay bi sëñ Abdulaat tàmbali woon na ko sëñ Muntaxa bi mii fi nekk yàlla na fi yàgg te wér ma nga te lam man ak lëmmul yàlla na ko àggaleeg jàmm te fekk ko tan fekk ñun ñëpp lañ cey dolli rek mooy dañ ci am sasu rëy ñun ndax sëñ daam ak sëñ Ahmad yi nga xam ne fas nañu yéene tabax jumaa ji ni ko sëñ Fallou Galas si la waxee ñoo jënd titre foncier yi ñaari titre foncier yu taqaloo yoo xam ne benn bi soixante-dix millions la jar benn bi cinquante million def ko addee sëñ Tuubaa te façon ni yéene woon na ko bu yàgg naaloon ko pour defan ko jumaa waaye gannaaw bi nag la ci soppiku def ko addee Seexul Xadim bu mu ko defee addee Seexul Xadim ba noppi ne fas na yéene buñ tegee xeer bi mu tabax ko boom mu àgg ci alali boppam te liñ koy lim koy tabaxee dajale na ko ba noppi man mii nag maa ca dolli daam bu nu ëppee ak manit warunoo ëpp yéene ndax lii muy def yowmal boppam la koy defal yowmal xiyam dana fekk ko ñii nag lu néew néew doole am na lun tollol ndax wala fi dañuy wax ne ku munta xala bit war a mën a giwal tax na jaadu na ci nun ñun jëpp kenn ku ci nekk nga fexe ba def ci saw ñaq ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne ku tabaxal yàlla ab néeg bu toll ni tàggum perantaan mu tabaxal la njënn ci àjjana te saakob ciment moo ëpp tàggum perantaan njëgu feer moo ëpp tàggu perantaan kon nag kenn ku nekk lam ca man te di jullit ak fu mu mën a nekk ci àdduna na ko ca def na xam ne bu demee fekk ko foofa soxna fat ja taw Seexul Xadim nag woon na baayam nee na ko faati mu ne ko mbakke mu ne ko gépp jaamu yàlla goo yëkkati mu dëppoog bakkan say boo nga teg ko ci suuf te xam ne du jaamu yàlla ndax jaamu yàlla mun si dëppoog bakkan kon nag yéen waa comité bi ak nun jëpp nan ko def te yàlla tax te séentu ci ngërëmul suñu borom buñ ko defee daan ci am leen bëgg tey ak ëllëg asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. képp koo xam ne mënuloo xalab war nga mën na nag fexe li nga xam ne moom mu bokk ci yow nga dugal ci loxo ci liggéeyu yàlla bi waa kër Serigne Cheikh Ibrahima Fall ak waa kër Serigne Saliou Touré ñëpp mboolem seen ñu ngi leen di woo ci liggéey bii nga xam ne liggéeyul yàlla la asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقلبي بمن المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقلبي بمن المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا